tey ci àjjuma bu sell bi dama ñëwoon ci mosquée de la divinité euh, ziar ci njabootu sang sang bi Guèye ziar xalifaam sëñ Mouhamad sang Guèye euh, waxaale leen yéene bi ma am ci projet bu ma amoon ci campagne présidentielle bi ma amoon pour ñu samp fa shahada la ilaha illallah muhammad rasulullah en bronze sallallahu alayhi wa sallam ma wax ne duma ci xaar état comme amoon naa ci yéene te yéene buy nalaw la ci man ma ne naa fexe jël ay techniciens sénégalais ñu defar ko waaye balaa ngay defar kër jaamu dara da ngay ñëw laaj ndigal loolu laa ñëwoon waxante xalif bi mu may ma ndigal pour ñu def ko ma ku ñëwoon gaale sama ay mbokki taalibe ci ay dëj yu ma amoon fii jaale leen donc di sant yàlla bu baax loolu moo doom suma programme mu tey fii ci ci biir Wakam. Dieu parle au doués de raison euh, ci biir euh, ay ceeñeeram dafa wane ci élection présidentielle Sonko ak euh, Bassirou Diomaye fay gagné réew mi au premier tour à 54 pour cent ma wax ne ñii dootuma opposé wu ak ñoom damay fexe rek ñoom li ñu nekkee. ma ànd ci ak ñoom moo tax suñu coalition jàmmi réew mi décidé euh, à appeler à voter la coalition PASTEF sans condition sans condition boobu mooy man utuma ci ndomba tànk utuma ci visibilité mais li ma wax rek mooy dinaa ci dox sama kéem kàttan ba ñu am majorité à l'Assemblée nationale mun a doxal réew mi pour que ñu dem définitivement vers euh, de faire une Sénég euh, du Sénégal une puissance économique euh, une véritable puissance économique loolu laa jublu ci mbir mi àdduna bi mi ngi dox foo tukki ci adduna bi dëkk yi ñu ngi avancé si ay rythme yu doy waar te suñu réew ba léegi mi ngi nekk rek ci wax ay diw mën na diw mënul ay saagante xastante moo xam ne il faut ñu dépasser loolu te pour ñu dépasser ko il faut que le 17 novembre bi massivement sénégalais yi jox waa Pastef majorité ñu diriger réew mi seen plan bi ñu tëral mooy Sénégal deux mille cinquante yàlla def même avant deux mille cinquante que dans dix Sénégal mun a romb Émirats arabes unis Sénégal mun a romb Malaisie Sénégal mun a romb Singapour ci ci wàllu yëpp nag ci wàllu koom ci wàllu sécurité ci wàllu mbay ci wàllu napp ci wàllu sàmm ak ci wàllu cohésion sociale moo tax ma jox leen man sama sama carte blanche te li may woo sax waa Sénégal encore mooy ñun dañu war a jox carte blanche Ousmane Sonko mu diriger cinq ans bi moom ak Bassirou Diomaye fay tranquillement parce que am nañu yéene indi Sénégal bu bees ñun tam amoon nañu yéene bi mais yàlla dafa ñu wan ne yéene bi maa ko teg ci loxo Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay ñun ay jullit lañu ñu nangu loolu nangu ndogalu yàlla boobu ba pare fekk si yàlla ci bëgg-bëgg boobu mu bëgg ñun jaam rek lañu moo tax li ñuy ñaan yàlla mooy le 17 te am naa ci yaakaar it ne que ils auront une majorité écrasante et mu nekkaale aussi euh, retraite les politiciens yi fi nekkoon 1960 ak léegi mu jeex définitivement une nouvelle classe politique émergée ay ndaw yu bees ami xam-xam bëgg seen réew ñu jël réew mi nag soppi ko mu mun a jonjonteeg mbagg toutes les puissances yi nekk ci àdduna loolu mooy suñu yéene ñun tamit. ma violence li ma gis mooy ay nit ñuy ñuy organiser ay violence pour wane nekk que affaire bi tàng na man lii laa gis li ma yaakaar mooy à partir du set novembre Sénégal bu bees bi ñu jëm kenn waruñu ko xañ gis naa nag nekk Ousmane Sonko ndeysaan ñaanal na fi ay nit ñu am ndoom ndomba tànk ñu mu nekkal ak ñu mu nekkalul woon léegi nag la le 17 samp na ndëndam bi yoon di ñaan. may ñaan sénégalais yi ki leen daan ñaan ngeen di ko may pour ñeneen jot na moom mu samp ndëndam ñaan leen ngeen may ko directement foofu rek la mbir mi toll incha allahu taala yàlla def jàmm ci réew mi jàmm jooju nag kenn tam mënu ko xañ réew mi ndax am nañu mag ñu baax ñoo xamante ne seen dund lépp ñu ngi ko laloon ci jàmm cheikhul xadim bi mu dellu see ci exil bi dafa wax ne jéggal na ñëpp loolu moo indi boobu ba léegi tubaab mu a daagu ci réew mi tranquillement ndax su waxoon ne tubaab bi fitnaal na ma ba léegi ñu toll nii fu ñu romb tubaab fitnaal ko mais dafa wax ne jéggal naa ñëpp Seydi Hadji mali def noonu Cheikh al Islam def noonu ak ñeneen ak ñeneen Seydina Limamou Laye ak ñeneen ak ci réew mi jàmm jooju moom moo nekk suñu porte étendard kenn na ko faagaagal kenn na ko nësaxloo moo tax may woo ñëpp ñu wëlbatiku dox dox ca jàmm jooju ndax jàmm jooju rek moo jëkk Sénégal. mosquée de la divinité li ma prévoir mooy dans le cadre du tourisme religieux bañ a xaar benn état ma wax ne shahada bi en bronze bi ñu bëgg liggéey ñu liggéey ku samp foofu ak ak ay euh, euh, lamp énergie solaire nga xam ne à partir de vingt heures foo nekk ci réew mi ne day tàkk di leer euh, six heures du matin mu fayat automatiquement parce que li ma ci jublu mooy bëgg naa rek ku romb loolu sa xel dem ci jumaa ji. dem mosquée de la divinité demaale ci shahada bi sa xel neex sa xool dal sa ajo faju loolu laa jublu ci projet bi te yeneen projet yi ma wanee woon aussi yow yëpp bëgg naa benn bu ne aussi ñu ni ci saafara sans pour autant xaar dara ci état le JFK su ma juumlee waxoon na bu leen bu leen seet li leen seen réew mën a apporteel mais yéen jéem leen xool lan ngeen mën a apporteel seen réew te ci wàllu wow laa bëgg man féetewoo mooy xool lu ma bëgg apporteel sama réew ànd naa ak Pastef te gisuma Ousmane Sonko nuyonte wuñu ànd naa ak moom xaaruma ci juróomi at aussi benn nomination parce que sama temps sax mayuma ko waaye ànd naa ak moom nag lépp lu ma gis lu war a baax ci réew mi baax ci askan bi danaa ci taxaw te duma ci xaar moom incha allahu taala ci man may doxaaleeg moom di màgg moom ba ba ni ma toll tey ji alhamdulilah rabil alamin ma wax ne sama yéene mooy mottali ko moo tax man jee décidé Euh, projet bi Assane Sy Mansour mi nekk ci sama biir njaboot moom ak euh, Moustapha Amdi Moustapha ak kenn ku xalif bi tànn ak ñaari bijoutier ci Sénégal ñoo xamante ne dañu xarañ ci wàllu liggéey boobu laa nar a boole pour ñu mottali on a déjà fait euh, le processus maquette bi gisoon ngeen ko léegi li ci dese mooy matérialiser ko on veut le faire et def une cérémonie bu mag pour présenter ko àdduna parce que la mosquée de la divinité au-delà du Sénégal euh, elle dépasse nos nos frontières bi ci topp mooy mosquée de la divinité fa mu samp ak lañ ca waxoon sang bi géey yàlla wax ko ci loolu képp ku am basaratul xal di am yëg-yëgu biir di nga comprendre ne que dëgg-dëgg la mystique qui entoure cette mosquée elle est sacré moo tax man tam ma bëgg a bokkaale ci ñi nangu te nangu yëfi yàlla xalif bi wax na ko sànq mooy tàbbi ci cofeelu yàlla te tàbbi ci cofeelu yàlla mooy bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam soo ko bëggee tàbbi ci cofeelu yàlla ni moo indi moo indi mbir mi maa ngi leen sant di leen gërëm